Salam, salam la mifa, j'espère que vous allez bien. Alors merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr, la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. Mais vous attendez quoi Au fait, l'angène rare. d'amener abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. alors gars yi tey nag dañuy wax ci Elzo Jamdong dong ci clip bu mu mujjee génne intitulé Sembène parce que nag clip la boo xam ne mérité na ay million de vues ak frigo bu fees dell mérité na média rap galsen yëpp wax ci et gis naa ni depuis ba clip bi génnee ba léegi média rap galsen yi ak melomaan yi ak même sax ñi nga xamante ne nekk ñu ay fans Elzo partagé nañ ko donc loolu yëpp nag joobam euh, ak bañ topp tendance ak gis-gis bu sore bi mu am moo ko ko may tey nag ci sound bobu la ñuy wax expliquer et détailler après ngeen mëna wax sen xalaat ci commentaire yi légui let's go ñu xoli un peu sur la vidéo ñëwaat légui légui ay ayca. gañe ay titre sama entraîneur fil la ay góor yàlla ñoo ma formé game bi dafa serré sa rappeur day forcé dama fii ni ki soog a génn forbe fii ni ki soog a génn forbe bind ay punch ak mbolde yow dëgg crispé comme pata bu sol es maa koy safal comme nika ci soble so amee ay rap maay loknes may ma di ba mu ba sankara ngay daaju ci bari comme sanga alors gars yi vidéo baa ngi noonu et c'est intitulé Sembène donc titre sound bi rek boo ko gisee ba ko yow automatiquement dina am lu mu la jox en fait Elzo Jamdong donc dafa nekk rapport boo xamante ne ni day force gars yi defi recherche ci nit yu mel ni Ousmane Sembène te loolu rek xam-xam la moo tax mu jël titre sound bi tuddee ko Sembène sound bi nag da koo def juste pour rendre hommage à Ousmane Sembène parce que si 2 minutes 54 secondes Elzo Jamb donc résumé 4 œuvres de Ousmane Sembène image non mais c'est extraordinaire Si leen affaire 0 minutes 0 secondes, film Borom Shared en 1963 0 minutes 39 et 46 secondes Le Noir de 1966 1 minute et 5 secondes Manda en 1968 et 1 minute 32 secondes Gelawar en 1992 bon clip la est xamante ni image fait c'est une vidéo automatiquement tu peux comprendre à travers les images mais aussi mention spéciale et big respect au réalisateur réalisateur bi fait un job nice ci clip bi man bu may un clip je damay xalaat nan Mais, mais Gagne bi réaliser vidéo est-ce que est-ce que ça va dans sa tête tellement affaire yi dafa nice fu ko tourner lieu et tout jël le temps vraiment Elzo ak réalisateur bi inspiration bu graaw sax lañ am ci vidéo bi gars ma xamal leen leen gis nga talent boo ko amee rek am culture générale da lay facilement nga mën a rab lu carré loolu nag moo nekk ci Elzo dafa am talent mën a rab li gën moor di wax naan boo amul culture hip hop mënoo maa bëgg donc pour dire vrai ku bëgg comprendre li Elzo wax ci sound bi yépp demal def recherche ci ay archives Ousmane Sembène Elzo benn défaut la am ah mooy dafa mën a rab loolu rek mooy défaut et dernier temps yi boo leen xoolee rappeur bu plus productif légui nak dañu ñëw à ci biir sound bi jël quelques bars yo nañu ñu waxtané ko ak après ngeen wax seen xalaat ci commentaire yi parce que ci biir sound bi y' a tout hein. am punch amne ego trip am pic am next level y' a tout dedans. légui premièrement ils leen dégloo Jam Dong mu ngi naan sama entraîneur fil la ay ma formé game bi dafa serré sa rappeur day forcé dama fri nu soog genn bon fii dinañ fi am euh, technique d'écriture altération en F comme fu muy waxee naan sama entraîneur fil la formé forcé ak formé. Phil Jackson un entraîneur la coach des Bulls de Jordan meilleur coach de l'histoire NBA bind mi rek dafa nice non mais je vous le jure léegi ñu xuusaat bu ngeen ko dégloo mu ngi naan maa koy safal ni nikaa ci soble nikaa mooy kaani dafa juutal wax bi comme par exemple nga une bandi rek ne limba léegi troisième mu ni lu tax ngay siisu maay booy yow yaay Dominique man May Zizou léegi barbi bi nag mo indi coow parce que gars yi nee nañ Elzo Dibla clash ni ne non dafa tomber ces trucs du genre mais nag lu tax ñu ne Dibla clash c'est parce que boo de mu ne maay Boy, yow la Dominique ñun ñëpp suñu xel day dem automatiquement ci Dip Doundou gis. parce que moom moo le tudd Dominique ci game bi léegi nag pour ma expliquer fii sama xel bu gàtt sama gis-gis ak sama xalaat lu Elzoni yow ya Dominique maay Dominique moy ancien entraîneur France bi mais dafa defaale name dropping ci turu Dip pour man du question que ni bon dafa tomber wala clash non pas loin loin de cela mais lu mu visé et xam na li bu ko defee dina def bruit ci game genre gars yi di laajte ndax clash le ou pas mais Dominique bu Elzo di wax moy Dominique ancien coach France bi dafa def name dropping ci Dip en plus comparé bopom ak Dip parce que nee may boy Dominique man may Zizou technique d'écriture comparaison la def Dib moy Dominique ancien coach France mom moy Zizou ancien coach Real donc li bëgg wax Dominique ancien coach France dafa jeexal comme ni Dib jeexalee mom mo xew comme Zizou je sais pas Nak boudé Elzo Dib lay waxal ou pas mais en tout cas man japp naa ne li ma lay doon ko ci xalaat leneen tamit mën nga ko wax ci commentaire yi quatrièmement mu ay millions de vies frigo vide li genre métaphore laa ko jëlee au fait li mu bëgg a wax mooy rappeurs yuy jënd fii ci internet bi ñi nga xam ne dañu am millions de vies te dañ koo jënd seen bopp la ñuy nax naxuñu kenn de mais seen bopp la ñuy nax naxuñu gars yi comme par exemple rek nga jënd frigo te amoo loo ci def xam nga loolu moom sa bopp ngay nax parce que à chaque fois boo xëyee yaa ngi gis frigo bi te amoo loo ci def donc côté boobu lay waxee moo tax ma ne genre métaphore laa ko laa koy jëlee. donc nag gars yi sound baa ngi ni eh, c'est intitulé Sembène wax leen seen xalaat ci sound bi ak tamit noo leen gisee la vidéo selon vous Elzo Diame Dong Dib lay waxal ou pas en tout cas man wax naa leen li ma xalaat ci côté boobu bu dee am na keneen tamit koo xamante ne ni am na leneen lu mu ci xalaat s'il vous plaît gars yi bàyyi leen ñu ko ci commentaire yi à vos bàyyi naa mu tëmb. alors c'était ça la vidéo du jour avec votre Kenza 221 Nous donnons l'artiste rappeur très talentueux Mouy Elzo Jam donc sur sa toute nouvelle vidéo intitulée Semben. donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker comment sur le jeu sur Instagram sur le nom de Kenza l'officiel ma page Facebook bien sûr Kenza 221 sur TikTok Kenza national et sur Snapchat Kenza Diallo allez peace and love la mi gros bisous à la prochaine et restez bien connectés bye bye